mbokk yi ñaata lañ gis ci événement làmb gaa ñi jël fa téere yàlla bi nga xam ne mooy suñu constitution mooy téere bi gën a sell bi jullit ñi am mooy téere bi nga xam ne moom la jullit ñi gëm jël ko di ko yóbbu ci làmb léeg-léeg xotti ci ay page ne dañ koy saraxe kañ la kañ la saraxe ay page wala kañ la saraxe àgg ci di dagg alquran di ko saraxe boobu saraxe kan moo ko digle boobu saraxe kan moo ko digle loolu ñu ngi koy seetaan bu doon ak suxriya doon ak doyadal doon ak suufeel li nga xam ne mooy diini yàlla gi suufeel li nga xam ne mooy tiire yàlla bi mbokk yi dem nañ ba àgg ci tey bésu ajjuma biñ nekk muy 31 janvier 2014 ñu àgg ci bés bi nga xam ne mooy bés bi gën a tedd ci jullit ñi seen feet la bés bi gën a màgg fa yàlla bés bi nga xam ne moo gën ci bésu semaine bi feet la ci jullit ñi bésu jaamu yàlla la ñu nekk ñoo xam ne dañ ciy tëgg làmb bàyyi samedi bàyyi dimanche tànn bésu ajjuma di ci tëgg làmb kooku provocation la kooku tooñ la kooku doyadal ak ñàkkal fulla lislaam la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ni te ba tey eh, dara xewul. yaa ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه bokk ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala cant gi mu yellool di ko sant di sàkku ci moom ndimbal di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ñuy wax ne ku yàlla jubal kooku mooy ki jub ku yàlla réeral ci maanu teem kookee mooy ki sànk ñoo ngi seede ne amul benn buur boo xam ni yelloo na ñu koy jaamu jaamu gu tege ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala ci julli ci yonent yàlla muhammad di ko ñaanal jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku su sunnaam ba keroog bés penc gën naa loolu mbokk yi ñoo ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala jëf ay digleem bàyyi ay tereem suñ kéem kàttan gën naa loolu mbokk yi ñaari mbir a ngi nii ci sharia dañ koo ŋañ ci sharia yàlla bi Eh, yàlla dafa digle ci shari'am ñu sori leen te moytu leen te set ci yàlla araamal ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy araamal mbir bu njëkk bi mooy ëppal ak teengal ci wàllu diine borom bi nee na yéen waa ahlul kitaab parce que seen melokaan la seen jikko la bu leen ëppal ci diine ji te bu leen di wax ci yàlla lu dul loo xam ne dëgg la mbokk yi diine lislaam dafa tere ëppal ci diine ak jéggi dayo ëppal ci wàllu pas-pas ëppal ci wàllu li nga xam ne mooy wax ëppal ci wàllu jëf ci mboolem façon yi am ba lislaam dafa tëj bépp yoon buy àggale nit ki ci ëppal ci diine lislaam daf koy freiné pour nit ki ba a ëppal ci wàllu diine boo jëlee yi yàlla farataal ci jaam yi julli yi juróom julli yi nga xam ne war na ci jaam bi mu def ko yi war juróomi julli la juróomi julli yoo xam ni ci lislaam ci ay rakkaa yoo xam ni rakkaa yu ñu xam la julli bu nekk ak rak ay rakkaam mu nekk loo xam ne ci kàttan ak ci mën-mënu jaam bi la jaam bi mën na ko def diisul ci moom taxawaay bu bu gàtt lay doon te woyof ci ay minutes yoo xam ne minutes yu néew la minutes yoo xam ne yu néew la doonu lu diis doonu loo xam ne jaam bi mënu ko boo jëlee koor gi war ci jaam bi mooy benn weer la yeneen koor yi moom moo ko warlul boppam wala moo koy def wut di ci wut am am tuyaaba eh, mu nekk kooru gàtt ngay waaye koor gi yàlla waral ci jaam yi benn weer la ci fukki weer yi ak ñaar benn yoon ci at mi boo jëlee li nga xam ne moom mooy azaka yàlla subhanahu wa taala sant ko mbooleem jaam yi am na ñoo xam ne mën nañ dund ba dee duñ génne azaka seen yoon nekkul ci génne azaka parce que bokkuñu ci ñu war a génne azaka parce que dafa am ñu ko yàlla sant bokkul ci ñooñu kon ki ko yàlla sant mooy kii mën am mën-mën bi am kàttan ci génnee loo xam ni wàll wu ndaw la daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla sedd boo jëlee aj màkka yi noonu waawul mbooleem jaam yi nit ki mën naa dund ba dee te du ko def du aj màkka kon benn catégorie ci jaamu yàlla yi la war mooy ñi am mu ñu am la ko yàlla sant mbokk yi lislaam dafa nekk loo xam ni dafa tabaxu dafa tabaxu tege ci kaw li nga xam ni mooy yomb ak li nga xam ne mooy li dëppoo mën-mënu doomu aadama di nga xam ni yàlla subhanahu dafa koy sant moom jaam bi loole moo tax ñetti gaa yooyu biñ ñëwee ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajte yonent bi ay jaamu yàllaam soxnaam yi wax leen ne leen yonent bi alayhi salaam lii ak lii ak lii lay def ñu mel ni ñoom dañ ko xeeb dañoo xeeb li yonent bi def kooku buntu ëppal mi ngi bëgg a ñëw kenn ci ñoom ne moom dafay woor dog keneen ki ne moom dafay nekk koo xam ne rek day euh, du sëy ak jigéen keneen ci daal di wax ak góor góorgóorloom ci ay jaamu yàlla yi muy def te du bàyyi rawatina lu aju ci wàllu julli du noppalu yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ko ko xibaaree mu ne yéen yéen a wax nàngam ak nangam ñu ne waaw mu ne képp koo xam ni wàcc na bàyyi na sama sunna bàyyi na sama yoon wi ma rëdd ci diine tege ci diggu dóomu ak def loo mën kookee bokkul ci man mbokk yi boroom xam-xam yi ci lislaam danoo mosa moytuloo teengal ak ëppal ci wàllu diine loole ci lu yàgg ak ci lu mujj ak ci lu bees ñu ko bàyyi loole moo tax ñu leeral sax bàyyiwuñ ba kuréel yi nga xam ni dañoo teengal ci diine lislaam ba ñëpp xam ne kuréel yi ñoo gën a teengal ñoo gën a ànd ak taral ci wàllu diine boroom xam-xam noppi wuñ ci ñoom dañoo leeral seen mbir leeral seen yoon leeral seen ngëm leeral seen pas-pas tontu leen ci la nga xam ne moom lañ bind tontu leen ci li nga xam ne fa la ñuy tegtaloo wala moom la ñuy tasaare wala moom la ñuy jàllale ci biir jullit ñi loolu moo tax ñi ci gën a teengal ñu xam leen ci muy kuréel gi ñu tuddee alxawaarij lii wane seenu teengal muy ali ibn abi taalib bokk kenn ci nekk kenn ci ñeenti xalifa yi nga xam ni mooy alxulafaa ur rashidun yonent bi seedal ko àjjana fekk mu ngi dund ci kaw suuf faatuwul mu ne ko yow àjjana nga jëm ali moomu ñoom ñu ne yéeféer ki yeneen yonent bi seddal àjjana ñu ne ko yéeféer la kooku teengal nu ko passé Muawiyat ibn Abi Sufyaan bokk ci saxaaba yi tedd def ay jaloore ak ay mbir yu rëy ci biir lislaam ñu daal di koy nekk ñoo xam ne dañ na yéeféer la loolee kon ak teengal lay wane mbokk yi nag euh, li nga xam ne mooy teengal googu ak kuréel gii di xawaari ji ak seen xalaat ak seen idéologie ak seen gisiin dañul di tasaaroo ci li nga xam ne moom mooy nit ñi parce que ñoom dañuy yéeféerloo li nga xam ne mooy njiitu jullit yi képp ko àttewul charia ci ñoom yéeféer nga bal yemuñu fa ashuub muy peuple yi di population yi ci boppam dañuy yéeféerloo ña ci ëpp ci ñoom pas-pas boobu tey boo ko xoolee dafa tasaaroo lu bëree bëri ci jeunes yi tasaaroo ci lu bëree bëri ci doomu jullit ñi te ñoom yëguñu ne sax pas-pas bi ñu gëm pas-pasu xawaarij la léeg ñu ne la sax ci sunna la nekk léeg-léeg ñuy revendiquer sunna léeg-léeg ñu ne la ci la nekk te pas-pas ba ñuy gëm di ko tasaare xamuñu ne pas-pasu xawaarij la ñoom seen bopp dañoo war a seggaat ci ñoom lu bëree bari mbokk yi bokk na ci liy tilimal image lislaam di tilimal image di yàq li nga xam ne mooy euh, euh, melokaanu lislaam di muur rafetaayu lislaam ak mbaaxam ak jekkam di yo doon li li nga xam ne mbañeel ci ñi dul jullit ñuy gën a bañ lislaam bokk na ci mooy ëppal ak teengal yi nga xam ne yenn ci doomu jullit yi def nañ ko di ko wone ci li nga xam ne moom mooy turul islaam te loolee it dafay dell ci seen ñàkk jàng diine boo leen jëloon kenn par kenn ñay def loola wala ñay tasaare loola kenn ku ci jàng arbaina nawawiya bi nga xam ne mooy téere bu ñu di tàmbalee ci xadis jàng ko teg ko ci xam-xam bu leer amut boo ci jëloon ci ku jàng téere pas-pas bu leer jàng ko ci ku mu ko war a jàngi amut fortaatu fii fortaatu fii fortaatu fii dajale fële toog di wax la ak dëgër fit loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ba pare yemuñu fi di tuumaal borom xam-xam yi façon tuuma goo jël ñu teg ko ci kaw borom xam-xam yi euh, di ñaaw njort ci ñoom di ñaaw njortu ci borom xam-xam yi ba jàpp ne sax ñoo leen ragal yàlla ak di leen jam yemuñu fa di moytuloo nit ñi borom xam-xam yi léegi jullit ñi buñ demee ba dañuy moytu seeni borom xam-xam ci ñan la ñuy dellu buñ demee ba dañuy moytu seeni borom xam-xam ci ñan la ñuy dellu waa joo xam ne dafa fortaatu déglu na fukki at ak juróom mi ngi toog di déglu wala fukki at wala juróomi at mi ngi déglu ay waxtaan rek kooku la ñuy déglu loolee mënta nekk mbokk yi loolu moo waral yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne maa ngi leen di moytuloo ngeen di teengal ci diini teengal ci de baaxul ñaareelu xam ni euh, yàlla ko araamal comme ni mu araamale bi jiitu l'islam mooy ci loo ko parce que ñoom ñaar ñaari gunt lañ yoo xam ne li mën a yàq dafa bëri mbokk yi mooy di caaxaanee ak di fooye diine yàlla di caaxaanee ak di fooye diine yàlla ak woye fal ko ak di ko doyral borom bi nee na gaa ñi nga xam ni dañoo jàpp ne du ñu ñun yàlla jël àdduna daal di koy gërëm mu gënal leen àllaaxira seen ñu am ci ak dal ba jàpp ne adduna rek mbir mi àdduna kese la àllaaxira amul weddi suñuy aay sàgganee ko yàlla mu ne ñooñee seen dëkkuwaay seen delluwaay mooy safara loolu la leen di yàlla di fay ca lañ doon jëf bi ma kaanu yaksibuun boobu bi dellu waxaat fa nadaru alladina laa yarjuna liqaana fi tughyanihim yaamahun gaa ñi jàpp ni duñ dajeeg yàlla lañ leen di bàyyi ñuy foo di caaxaan ba jàpp ni duñ dajeeg ñun waaye duñu rëcc mbokk yi fooyee diine ak caaxaanee ko ak di doyedal lépp loo xam ni dafa jokk dafa laal ci li nga xam ne mooy lislaam loolee mooy yoonu yéeféer yi weddi yàlla moo yoonu kàccoor yi moo yoonu naafiq yi borom bi euh, nettali na ne ñoom mus ñu bàyyi yonant bu jaar ci kaw suuf wala nit ku baax bu fi yàlla jaarale mu jaar ci yoonu yonant ya lu daañ la saboté daañ la doyadal daañ la marginaliser lu nekk daan la ko teg borom bi wax yonent bi ne ko yonent yi fi jiitu woon gaa yi dañ leen na nekkoon nañ di leen doyadal waaye ñooñu doon leen doyadal yàlla mu ne yell na ci ñoom wàcc na ci ñoom wàcc na ci ñoom lu yell ci ñoom ndax liñ doon doyadal yonent yooyu mbokk yi kañ la saboté diine kañ la saboté diine ak di fooye lislaam di taxaw ci réew mi ñu nekk muy Sénégal euh, seetaan nañ seede nañ gis nañ lu bëree bëree bëri ci chaîne boo xam ne jaar na fi te jeexagut mu ngi continuer di dérouler di dem ci ay sabotage yoo xam ne ñu ngi koy def ci ci diine lislaam gis nañ fi ay scénario yu ñu def ci ay théâtre yoo xam ni saboté ay imaam la imaam yoo xam ni lañuy def mooy ay ay ñaawteef di jouer ay carte pénale imaam yoo xam ne dañuy fecc ay sabar imaam yoo xam dañuy waraate dañuy dog seen dañuy jouer rôle ku woor dog koor gi ci ne bëccëgu weeru koor loolee du lu ndaw mbokk yi seetaan nañ ay ay nit ñoo xam ni seen liggéey ak seen métier mooy reetaanloo nit ñi weeru koor di ñëw ci rajo yeeg télé yi ñu ubbi ay téléphone ne dañuy fatwa ci koor gi dañuy fatwa ay nit ay góor ak jigéen di woote ñuy wax ay wax ci diine yoo xam ni ku ko dégg sa xol dafay tiit sabotage goo xam ni kenn xamul lu muy nuru dara xewut mbokk yi jël ay programme mu diine ci dëkk bi jox ko ay nit ci tele yi ak ci rajo yi ñu dañuy jàngale diine te jànguñu bay jàngale jànguñu bay jàngale képp koo xam ni yàlla may na ko xel mu leer may ko xol boo xam ni ngëm gu dëggu mi ngi ca ak xam lu baax xam ne ñooñu du ñu war a jàngale du ñu war a jàngale dañoo war a jàngi mbokk yi ñaata lañ fi gis ay journaux ci média bi ay journaux ay rajo ki télé di song ñuy góor góorgóorlu ci diine seen kéem kàttan ak taxawal diine yàlla gi bàyyi ay caaxaankat bàyyi ay yàqkat bàyyi ay fookat ñoo xam ni defar moo leen tax a jóg defar société bi defar nit ñi ba seen digganteeg yàlla baax seen digganteeg nit ñi baax seen digganteeg seen réew baax ñu leen di song di yàq seen der di leen tilimal di leen doyadal ak di leen attaqué ci anam goo xam ni kenn xamul lu muy nuru mbokk yi lekk léeg-léeg sabotage gi àgg na ci mbir mu laal lislaam dafay ñëw du ñu woo ki xam lislaam war ci wax ñu woo benn waa joo xam ne ne dafay analyser te moom dañ ko war a analyser balaa muy analyser ñu woo ko muy analyser te moom dañ ko war a analyser amul benn poids ci lislaam bu ko may mu war a analyser loolee mi ngi am su ko defee la muy wax lépp doon yàqu wëlbati ko doon ak yàqute waaye du doon lay defar mbokk yi ñaata lañ gis ci événement làmb gaa ñi jël fa téere yàlla bi nga xam ne mooy suñu constitution muy téere bi gën a sell bi jullit ñi am mooy téere bi nga xam ne moom la jullit ñi gën jël ko di ko yóbbu ci làmb léeg-léeg xotti ci ay page ne dañ koy saraxe kañ la kañ la saraxe ay page wala kañ la saraxe àgg ci di dagg alquran di ko saraxe boobu saraxe kan moo ko digle boobu saraxe kan moo ko digle loolu ñu ngi koy seetaan bu doon ak suxriya doon ak doyadal doon ak suufeel li nga xam ne mooy diine yàlla gi suufeel li nga xam ne mooy tiire yàlla bi mbokk yi dem nañ ba àgg ci tey bésu ajjuma biñ nekk muy 31 janvier 2014 ñu àgg ci bés bi nga xam ne mooy bés bi gën a tedd ci jullit ñi seen feet la bés bi gën a màgg fa yàlla bés bi nga xam ne moo gën ci bésu semaine bi feet la ci jullit ñi bésu jaamu yàlla la ñu nekk ñoo xam ne dañ ciy tëgg làmb bàyyi samedi bàyyi dimanche tànn bésu ajjuma di ci tëgg làmp kooku provocation la kooku tooñ la kooku doyadal ak ñàkkal fulla lislaam la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit nii te ba tey euh, dara xewul nit ñi nag dañuy def benn lapsus benn amalgam di wax ne boroom xam-xam yi waxuñu boroom xam-xam yi ñi ngi wax boroom xam-xam yi ñi ngi wax seeni dars di jàngale ñu ngi koy wax ci seeni xutba ñi war a wax te waxuñu ñooñu lañ war a laaj waaye borom xam-xam yaa ngi wax waaye ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ne seen kàddu ñëpp koy dégg suñ bëggee télé ñu indil leen ko suñ bëggee rajo ñu indil leen ko seen mbiru bopp su xewee ñu toog wax ñëpp dégg te yëkkatiwuñ kàddu nañ wax li tax ñooñu waxuñu waaye buñ wax borom xam-xam li tax waxuñu borom xam-xam yaa ngi wax loolee lu mat a bàyyi xel mbokk yi sikki sàkka nekkul ci ne bés bii lu bëri ci ay jeunes duñ julli ji jumaa dem nañ stade nañ fa toog bàyyil ñaari mbëri ñoom duñ julli ci juma waaye groupe bay ànd ñoom bokk ak ñoom di leen jàppale ci mbir yu bëri dañuy sànku jumaa ji kooku amul ku ci sikki sàkk li ci gën a yéeme mooy waxtu komba bi mooy bés heure bi gën a tedd ci bés ajjuma muy saatul ijaaba bës bi nga xam ne waxtu yi nga xam ne ci la ñuy nangu ñaan ci bésu ajjuma ci lu wér ci waxu borom xam-xam muy ginnaaw tàkkusaan ci lañ koy def jullit ñu bari kon loole ñu ko bàyyi xel dana nekk luy faat luy sànk luy dem ci ñoom la ba tey mel ni dara xewul allahu almustaan wa ilayhi takalaan rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tudiq qulubana bada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab qumu ila salatikum rahimakum allah فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون